voilà docteur euh, Yacine Diakane euh, maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. waaw ma fàttali ni yow kon ab docteur nga di pneumologue euh, tey jii àdduna wërngal këpp di màggal bëccëg bi ñu jagleel wàllub asma muy mhm. kon feebar bi nga xamante ne bëri na lool lu muy indi ni lorange ci doomu mhm. aadama yi waaye mhm. atum ren ji mu fegook jamonoy mbas coronavirus bi kon mu mel ni mbas moomee ñu bëri moom lañuy ñuy waxtaanee. laaj bu njëkk bi mooy ba xam. asthmatique yi euh, dañu nekk à risque maanaam dañu exposé wu euh, ci wopp bi di coronavirus. Euh, wopp bi dafa nekk wopp boo xam ne feebaru dëkkaale la feebaru dëkkaale boo xam ne léeg-léeg ñu nit ki toog yaram yaram feebar bi yëngatu hmm. te li yëngal feebar yaram bi ay mën na nekk ay doomu jàngoro hmm. ci doomu jàngoro yi mën na nekk aussi virus bi nga xam ne coronavirus la loolu mën na yëngal doomu jàngoro bi ba mu indil nit ki ay crise hmm. Euh, léegi nag ban taxawaay wala bokk ban comportement la euh, kii nga xamante ne moo yore asma war a am ci jamonoy euh, feebar bi di coronavirus. Ah, li mu war a def mooy farlu bu doon dafa warlu dafa farlu benn léegi fi mu toll ni war na farlu fukk. Euh, ndaxte war na topp euh, traitement bi nga xamante ne wàllu kër docteur mooy traitement bi ñu ko jox daf ko war fonk lool daf ko war a fonk tout le temps mais def ko war a gën a fonk tamit euh, li nga xamante ne moom la ñuy tere ba nga xamante ne moom moo tax feebar bi du du wàllaate ba wartu ba moytu mbas mi law loolu yëpp ku ne na cee jóg parce mm-hmm. que euh, xeex bi xeexu ñëpp la xeexu tamit ñi nga xamante ne seen dënn de woyof lool ñi nga xamante ne ñoom feebaru dëkkaale feebar bu mel ni asthme parce que bu fekkee ne yëngal na feebar bi mën na ko mën na indi gàllankoor boo xam ne gënalul mm-hmm. léegi nag ba euh, bëgg a laaj euh, ba feebar bi rawatina yegsee ci diwaanub Sénégal ba léegi ba xam am na impact ci lu jëm ci consultation ñi di asthmatique yi waaw li ñu li ñu seetlu mooy fi mu toll nii yenn saay sax dañuy toog maladie yi duñ leen gis parce que lu ci ñu ci bëri dañoo yenn saay dañuy sax ragal a ñëw hôpital. Hmm. waaye bu fekkee ne crise d'asthme daal daaneel la leen wala ñu soxla seen docteur bu ñu mun a jokkoo ak moom nañ jokkoo ak moom ba léegi parce que li ñu ragal mooy ñëpp jëpp gestu ci coronavirus bi ba nga xamante ne yenn feebar yi dañ leen di xaw a fàtte. parce mm-hmm. que asthme nekk na feebar boo xam ne dañ ko war a toppatoo tout le temps ku am sa rendez-vous bu dee ñëwee bu woowee sa docteur dina la jox ay tegtal yu wóor ci garab yi nga xam ne moom nga war a jël bu dee da am crise nag bu ci am xel ñaar mën nga ñëw boo ñëwee waa du kër docteur ñu seetu li nga xam ne moo nekk sa yaram parce que mbas mi dana indi musiba de waaye tamit jël sa crise muy di ko yar tamit mën na indi musiba. Mhm. mu bëgg laaj tamit euh, ana fan la Sénégal toll euh, ci xeex wopp bi di asma ah Sénégal mu ngi ci taxaw bu baax a baax parce que am na jéego yu bëri mi nga xamante ne mu ngi ko ci dox mu ngi ko ci dox boo ko demee ministère de la santé am na bureau ba nga xamante ne dafay toppatoo lépp loo xam ne feebaru dëkkaale la ci wàllu noyyi rawatina nag ci wàllu asm ñu ngi ciy dox ñu ngi ciy bind ñu ngi joxe ay tegtal ci ci centre de santé yi ñu ngi joxe ay tegtal ci poste de santé yi ñu ngi ciy jëngu bu baax a baax a baax ñu nekk hôpital Fandé fi mu toll nii de ñu ngi lëkkaloo ak ministère bu baax a baax di di taxaw seetlu di di jéem a xayma feebar bi di def ba nga xamante ne feebar bi la nekk loo xamante ne du dis lool ci doomu aadama yi. Hmm. ndax mën nañoo am tamit ab xayma ci lim ñi laaleek wopp bi wala ñi nga xamante ne ñoo ñëw di consulter at mu yàlla sàkk. waaw fi mu toll nii de mënuñ mën jox euh, euh, euh, chiffre boo xamante ni xayma nañ ko ci senegal lépp wërngal képp. Hmm. waaye li ñu mën a joxe mooy li ñu seetlu surtout ci sunu hôpital Fann bi am xayma waxoon nañ ko ba nga xamante ni xool nañ ne téeméeri nit boo jël juróom-ñeent yi ak benn yooyu am nañu feebaru asthme waaye li li ñu njort mooy mooy daal des na gëstu bi des na am na wóor na ne am na ñoo xam ne ñëwuñu hôpital wala dañu yor feebar te xamuñu ne feebaru asthme la ñu yor. parce que mhm. mën na niroog beneen feebar. Mhm. léegi asma lan moo koy faral di indi. ah dafay lu ci ëpp nit ki daf koy judduwaale dafay nekk ci deretam bu fekkee ne mën naa ko waxee noonu ci olof. Mhm. dafa am loo xamante ne nag lu lu mën na ko yëngal. di koy mën a yëngal nag bari na lool mën na nekk euh, xeetu mën na nekk xeetu kii yooyu nooyi maanaam niñ ñu koy waxee acarien xaw ma naka lañ ko mën a expliquer ci ci wolof ba mu leer day nekk yenn saay ci moquette yeeg yooyu nekk ci pënd yi mhm. mën na nekk euh, ci gàncax boo xam ne da koy nooyi mhm. mun loo xam la ne moo nekk ci gàncax bi ba nga xam ne moom yëngal na ko mën na nekk tamit jaww ji xamante ne poussière bi nekk ci jaww jeeg yooyu euh, saxaaru oto yeeg loolu yëpp mën na ko mën na nekk sax euh, nit ki xelam bañ a dal stress beeg yooyu yëpp sax mun na ko yëngal ak yeneen ak yeneen. léegi ba xam lu jëm tamit ci wàllub prise en charge bi ci diwaanu Sénégal ndax yomb na wala ba léegi métti na. ah fi mu toll nii euh, mën nañ wax ne métti na parce que am na ñoo xamante ne mën nañu jënd seen seen i garab. duñ ci am benn problème mais am na ñoo xamante ne balaa ñooy dajale pour mën a jënd seen garab vraiment dafay métti ci ñoom loolu moo tax fu ñu mun fu toll day nekk loo xam ne dañ koy xeex souvent di ci wax di ci waxtaan pour xool nan la ñu mën a def nga xam ne feebar du dis lool parce que feebaru dëkkaale la te nit ñi bëgg nañu jënd garab sax yenn saa mais doon doon am njëgam. Hmm. garab bi tamit ba xam euh, disponible na. Tismara bi disponible mu ngi ci pharmacie pharmacie boo dem wax dëgg yàlla duñu am benn jafe-jafe ci garab yi nga xamante ne moom lañ dee soxla pour faj asthme bi mhm. waaye li ci ëpp xam naa xëy na am ñu dëkk Dakar wala ñu dëkk ci yeneen régions yi di ko mën a jënd waaye boo xoolee euh, ñu ci ëpp daal euh, seen doole dafay néew ba nga xam ne garab yi duñ ko mën a ñëw jënd am na ñoo xam ne sax dañuy bëgg ñëw consultation mais du souvent la ñuy mën a ñëw parce que mhm. ndax seen doole dafa néew. Mhm. ba tey ci wàllu prise en charge bi lu mooy Dakar est-ce que maillage maanaam euh, ci diwaanu Sénégal fépp foo dem ba mu am malade asthmatique mën naa faju waaw am na am na ci am na jumtukaay yoo xam ne teg nañ ko ci centre de santé yu bëri yoo xam ne ñu ngi fii ci biir Sénégal yoo xam ne ñu ngi fii ci biir Dakar euh, jumtukaay yooyu mën na tax ba nga xam ne ku ci am crise d'asthme mën nañ jël en charge docteur yi fa nekk tamit jàng nañ ko di xam nañ ko dañ ko mën a jël en charge euh, dëgg la naam pneumologue yi nga xamante ne ñoom ñooy spécialiste maladie respiratoire euh, lépp jëm ci nooy naam bëri wuñu Sénégal néew nañu lool boo xoolee yeneen yeneen spécialiste yi waaye ñun yi tamit ñu ci wax dëgg yàlla ñu ngi ci góorgóorlu bu baax te day tax sax ma pour man occasion la a wax ne ñu a ñu spécialisé wu ci pulmonologie parce que bëriwul trop ñi nga ni ñu ngi koy def te am solo la feebar yeneen feebar dënn ñu ngi fi as ñu ngi fi yeneen ak yeneen mhm. mu bàyyi la kàddu bu mujj looy ñaax malade yi ci jamono yi ñu toll. Euh, ci jamono yi ñu toll xanaa dina ñaaxaat bu baax ñu gën topp seen traitement gën la euh, topp tegtal yi nga xam ne te ñu ngi koy joxe tegtal yi nga xamante ne rawatina nag tegtal yi nga xamante ne dañ koo war a def pour euh, mbas mi dul raw du law ci réew mi hmm. mbas mi baaxul ci ki nga xamante baaxul ci kenn tamit ba rawatina koo xam ne dënnam dafa oyof te am feebar bu xaw bu mel ni as docteur Yacine Diakane pneumologue nga nekkoon suñu gan tey jii ci matinal bi Rewmi FM mu ngi lay gërëm bu baax a baax ñu ngi leen di gërëm di leen sant merci beaucoup